daaj sama dënn mi de du man nag dama man maay coach man para léegi nag naay xaal toogal na moom danga tërën bi lépp jàmm tey xoolal defuñu combiné bu dara instant bi ñu xoolee yow ban léegi nga toll ci sa buddi donc léegi la bur bi bi mooy par exemple loo yeggee li nga manqué di am fi léegi la bu nga jom ko job bu nekkee moo am mooy cardio bi la wala flexibilité la wala affaire yooyu d'accord ñu xool affaire yi ñuy demee maa ngi. def jàmm la forme nice. toogal fii kon may expliqué sànq ah sa waay. combat bi loolu bi pour xool kan moo ëpp doole ko xam na lay xool état forme bi après ku ni toog ñu xool lan lay war a avancer wala yow bu nekk da nga eh, eh, eh, par exemple bu lekkee da nga manqué cardio ban mooy gën a gaaw fi léegi un mois am nga coach ba pare donc c'est très normal dugg même chose la ku nekk li nga war a manqué am nga un mois mun nga ko war a def yaa xam la yaa xam da nga am problème récupération yaa xam da nga am problème mu lekk bi yaa xam da nga am problème mu puissant lépp yaa koy def dégg nga d'accord ah? loolu mooy but bi fii but bi du kenn ke kan moo mën dool ko doole amul benn njëriñ loolu après dinañ ko liggéeyal di yéen boole nekkee ci arène d' accord soo dañuy def quelques exercices pour xool dañuy def exercice pour xool bi def exercice pour euh, euh, vivacité bi ak def quelques cardio bu jeex d' accord allez come on let's go. ñu def la ñu ba pare comme bii gars yi doon def gisoo yi gars yi doon def keroog gis nañ ko ci kii coordination lay àndal lépp lay def fii muy dem xoolal. waaw waaw fii. ah un. wàcc. waaw mais foo nga ñëw ba kii carrément da nga wàcc une minute lañ koy def mais pour l' instant dañuy defagum bii boobu mooy deuxième bi ah pour l' instant ah, bii la ñuy def un squat deux ok pendant une minute d' accord dégg nga ah léegi man dinaa juger kan moo vivacité kan ma dama au fur et à mesure ngeen barre fixe ah waaw dama ne na ànd noonu dama ne imagine léegi nga am contact une minute. loolu ma lay wax waaw man xam naa man waxu man kii waxoon naa ko. yóbbu ko ci kaw ah. kaan dem tëb ci kaw mu tëb ci kaw kaan dem su dem let's go come on up let's go ndox bu sedd dara nekk ci dégg gars yi wax rek come on come on naa ndox bu sedd moom moo lay teel a wàcce gars yi naan ay rey ngandel biir ay waxu dof la rek. non ba waaye naa ma ko seetlu bi. waaw man bii laa tàmm bii lay way loo rek. dara bii laa tàmm bii laa tàmm am naa man man laa tàmm. waa gars yi bàyyi la njëriñ la yooyu. waaw am na nag waaw am na ko loolu xam ne sa bopp mel fii ñu ne maa. coono ji waaye gars yi bàyyi leen loolu booy saa yi affaire ay dépassement la gars yi. non xoolal lii li ba ngeen ne combat la. bu tàng laa tàmm am naa dëgg bi dafa tàng fii foog ngeen naan lu sedd gars yi lay nax. waaye waaye ok ok nag come on up let's go. waaw naa la waay nag Thiaw. naa la waay. gars yi taxaw fii mu taxaw fii ah jëm squat lay defandoo tëb fii wàcc tëb wàcc hmm? léegi ah dama gis benn affaire bu ndaw ci yow boo xam ne mën nañ ko rectifier explosivité boo xasee ba wàcc après ce jour waaw ok c'est bon baax na wala <laughs> ma benn affaire laa koy expliquer rek dama gis ko koy def te boobu dafa baax ci yow quoi waaw <laughs> ok ma menace jëriñ <laughs> kii mu ngi lépp xoolal na ko gaaree xoolal suuf garab bi. Ah, waaw dama ngi affaire yi sew yoo xam ne. war ngeen ko mu rectifier day baax ci yéen quoi. waaw ok amul problème. <laughs> yeah let's go man. daanu moo kii. ku gañe ku gañe ku gañe ma non non non mooy panneau yi ñuy def. Ah, dafal bi mu pare mu bañ compliqué ci yéen. let's go on a une minute. tëb wàcc rek la. tëb wàcc rek laa sax. amul de benn mouvement. waaw dafal waaw that's it that's all I need okay that's it all right come on. vraiment go. voilà des fois da ngeen liggéey ci team there you go come on léegi bëgguma leen dégg boo leen déggule rek bu leen déggule rek mooy yaa ngi job come on ñëwaatal ñëwal indi come on good job guys come on bëgguma leen dégg bëgguma leen dégg come on allez guys come on there you go good job allez 20 secondes good job come on let's go come on come on ci suuf day gaaw pap pap la waaw rek jógaat ah loolu mooy explosivité ah come on 30 secondes come on guys come on can do this. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Come on. 20 secondes. Good job, guys. Come on. 20 secondes. Come on. Come on. Come on. Come on. 10 secondes. Come on. There you go. There you go. This second. This second. Come on. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Good lift, guys. One minute. good job. am nañu 30 secondes. jour chaque jour taxaw moo gën a baax récupération chaque jour léegi nag bii nii xoolal da ngay nooyee bakken génnee génnee gémmiñ nooyee bakken génnee gémmiñ ba relax nag relaxal doxal doxal loolu mooy récupération voilà bàyyi bàyyi sa yaram bi yëpp jógal nga dox récupération toog defu ko booy coach come on joxoon nga dox récupération taxaw ubbi sa dënn bi xëccee ba génnee bak génnee génnee gémmiñ bu exactly exactly let's go moom ma nag xam nga lii lan mooy lan mooy deal bi fii nan ngay approché lii non non non benn ngeen def bii ba pare doo leen defandoo ba pare. lii problème mooy approche bi bi ngay ñëw moo solo approche bi ngay ñëw moo ëpp solo genre de explosivité rek la waaw. léegi booy tëb sa jeune yi dafa war a nekk fii sa dënd dama rek ba pare loolu dinañ ci waxaat let's go non ñëw rek nga dox ñëw dama ah mu ngi noonu réception bi baaxul. te gars yéex na trop xam nga tax mu yéex xam nga man li tax mu yéex bu nekk en terme de combat bu may def loolu enchaînement ci air bi yow nii nga def siggee. mais yow li ngay def mouvement wu metti boobu yëpp pour dellu. def ko boo tëb ci air bi nga fay seen nga ñibbi seen i. la première fois waaw mais dama bëgg ne loolu loolu yëpp dafay wane entraînement. dafay wane compréhension wu mouvement dafay wane compréhension wu mbër. xam yaa ngay def nii da ngay tëb ba pare soo ko def nii mais war nga mun tëb nga xam ne ñii ngay feese loolu mooy yoon d'accord du loolu foo ngeen jàng affaire yu sew yooyu noonu mooy seen différence d'accord léegi nag xoolal caméra bu neex ci suuf kaay jërë ngeen jëf mbokk mbokku internet yi waat nañ leen bu baax baax di leen ziare fi ñu leen doon nuyoo rek lu ko waral nag mooy combat bi war a am le 12 novembre incha allahu rabbi arène nationale Tapha Tine Eumeu Sène Coly Faye numéro 2 bi nekk sama droite ak ki nga xamante ne moom mooy Thiatou Daouda Fall war nañ faa bëre mbéy guy gi marle ak yeneen combat yi nga xamante ne bu dàq sa morom rek nga ni bii la ñoom tamit tey dem ñëw nañ def li nga xamante ni seen i moromu mbër ñëwoon nañ def ko fii ci salle bi ak coach Lamine Diaw ah ñoom nag bàyyiwuñ Thiatou Daouda Fall nee na li nga bëggoon amoo ko waaye ak lu mën a xew def nañ ko ci yar ak teggin ñu war a waxtaan ak ñoom ci combat bi ku ci nekk tamit après danañ la fekk sa écurie waxtaanaat ak yow waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy say fans dañu commencé waxtaan ci Thiat maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyu mbokk internet waaw Lamine maa ngi lay fay di nuyu sama adversaire Coly di nuyu ñi ma àndal fii muy ku ci mel ne Zalkona ak euh, di nuyu sama waa équipe bu baax di nga teg ci loxo suñ papa suñu lépp muy Lamine fay ak suñ papa Mbës di nuyu suñu waa ek saal muy waa Golf Fitness Club di ko teg si suñ loxo papa suñ lépp muy euh, Père Abdallah ak Jamil Borom la di nuyu waa waa yëpp di nuyu waa waala waa waa Kër Momar saar waa ndimbu ndimbu pël ceekeen yi ba xama waa caareen waa góolam waa ñiic di nuyu waa Fuuta yëpp waa Pade waa Liw waa Seedo set dëkk wolof yëpp Malick Thiawet maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. di nuyu waaw bu baax. xam nga ma la foofu mos naa faa dem am naa fa trois sama dëkk turandoo la fanaan naa fa ñetti di nuyu. waaw suñu ah? dëkk suñu dëkk. delloo suñu xam nga jaay di nuyu waa bu baax a baax a baax a baax bàyyiwuma kenn képp kuy téye kurus maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu waa Ndar waa Paal xama di nuyu waa Touba suñ pap suñ lépp ñu Samba Ndour maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu di nuyu boobu borom kataba kataba deux waaw. Mhm. macha allah loolu am na solo. Coly yow tamit maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw auzu billaahi mina yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla jëli seen du gërëm suma ñaari waajur di ñaanal suma yaay fi mu tëdd yàlla suma borom xare ko àjjana si àjjana fi def di ñaanal suma papa suma borom bàyyi ko fi may ko wér-gu-yaram may nuyu li ko dalee maa ngi li ko dalee Richard Toll boobu Fouta waaw maa ngi nuyu ñëpp jaru may lim fi ma war a lim yëpp sa waay lim na ko xam naa ñoo ko séddoo ko waaw waaw maa ngi sant ñëpp di nuyu sama waa dëkk papa tamit waa Kajoor Sine Saalum bàyyi ma kenn may nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo fukki penc ak di woo sama mbokk lébu yi tamit waaw ñooñu mënuma tudd kenn te tudd ma leen parce que kenn mënuma génn si lébu yi lébu si nda lébu si baay waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo waa jàmmagan si kam mbaaw dërgi ndaay jàmbaar yëpp su ma waa ikiri mais woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp su ma waa Gambi waaw su ma ko su beeg Alassane ah di leen bëggee bu baax di bëggee waa Salba yëpp di bëggee waa Gambi yëpp bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ak mm-hmm. suma benn booy taximaan bu ñuy wax caat ak Pa Moussa waa Bakaw ñëpp daal bàyyiwuma kenn. ak waa Tànje waa Kosour waa Paradise View maa di parce que ñun lii jeex bu après làmb bu jeexee ñoo fi des mm-hmm. waaw yaakaar naa lu ñaaw xaju fi wax bu ñaaw wala dara xaju daal waaw comme man ni ma ko gisee daal ba dëgg fa yàlla kontaan naa daal waaw da am naa ci mbégte bu baax parce que ku ku joxe cër la waaw man tamit aussi respect man tamit aussi respect dama jël di ko delloowaat sa deux derniers combats yëpp Coly da ko doon tàngal foo taseeg sa adversaire yi ah ñàngal fii ah du am envie wax ak adversaire yi kii nga ñëw tey mu mel yéen ñaar yéen a bokk écurie gis naa ngeen di entraîné ba sax bay joxante loxo noonu lan moo changé ci diggante bi wala ci moom. espoir lañ ci wax espoir warul tàqale daa war a boole espoir moo ñu boole man moom ba pare kii man moom dafa am loo xam ne nii du ñu wax ak suñu diggante man ak moom après làmb làmb après làmb ji day jeex après ñoo bokk fi ñu jëm. kon ñoo bokk waalo ñoo bokk waalo moom sama mbokk la mbokkam la mais après moom relance kii moom day tàng jër waaw mais lu waxante lu ñaaw moom dëgg fa yàlla xaju fi boo xoolee moom ni mu doon communiqué combat bi paa combat yi li doon la lan moo waral loolu Thiat wax ni communication yi changé yi Thiat moom ku ko xam ci yar ak teggin nga ko xamee muy moom tamit suñu grand suñu lépp ak lu mën di xew yar lañ gis moom parce que moom la ñu wan comme li mu wax rek mais ci biir géew ba day tàng cër dañuy jël xama yar tey teggin tegee kon na la. andi mbër mi dëggantaan jaay. Mm-hmm. comme li mu wax rek. waaw di ci woo nag. suñu di nga wootee. <laughs> nga ne da ngeen di jël affaire yooyu noonu yëpp ay rusante yooyu. noonu rusante wuñ de. rusante wuñ dañoo séq jàmm. ba pare dañoo bokk li nga xamante ne comme li mu wax mënuñu ko séddoo. waaw moom muy doom waalo waalo ci benn côté. mais man waalo waalo laa ci nday ci baay. Mm-hmm. waaw. waaye saf na ci sax. damaa damaa bëgg mu xam loolu. ne moom daa daa laal waalo laal kajoor. waaw waaw. man sama lépp waalo la. man fi ma moom man sama bari. bañ la la ni mu nekkee waalo. waaw la sama lépp nekkee waalo damaa sangu ci géej gi la nga la boo ci dex. <laughs> non yow. noonu la demee nag kuli maa la feeñal. gars yi xamuñu woon ni waalo waalo la. non kon yow dañu jàpp ne. lépp la kon kon yow yaa ngi ko maa suivre. non si man mosuma ba pare. lam ne n'est-ce pas nga ma. sama combat yi ndaw ba fii mosuma tous ba àgg ci ma waalo waalo. non Lamine moom waxee rek bu waxee rek bu xamee ne waala waala nga yàggul boo bëggee dégg dëgg bopp nañ ñaan Baye Ndiaye mu ñaan CNG may ñu indi suñu temps pour moso mën a yow ma indi la trente dañ koy andi ma indi la trente tama dañ koy andi yow trente tama bokk waala waala yow loo andi si tawa mu dolli la ci benn trente tama bokk waala waala boo andee cent ma andi cent un nga andi mille ma andi mille un waaw sëñ Fallou mu indi cinquante kon neex na cinquante tawar sama tama bu saf sap dangay ñal ko lu neex kon kon laa mu yéen ñaar ñëpp da ngeen war a dangay non dañuy dangaj dañuy sama ci soxna papa ñun ñun huitième combat la ñuy bëre eh. dañuy ñaan ñu may ñu andi suñuy sabar suñu tambour major yi tëgal ñu ñu tuus lu neex mm. danañ lu neex bëggal bëggal amateur yi bëggal bëggal amateur yëpp quoi bëggal suñuy supporter parce que mm-hmm. waaw man damay indi sama cosaanu day ñëw cosaanu bi day ñëw wala wala day ñëw damay ndagaj ba génn bi hmm. kon yéen seen combat moo ci nar ëpp ambiance ni ko gis nii nag kanam gi dëkk Mame Fadé Wele lañ jógee hmm. dëkk Mame Fadé Wele ñun fa lañ jógee fa lañ meññeekoo ñëw fii noonu la demee nag. <laughs> ah jërëjëf moom. moom damay jéem a ko te xamul li ma doomu mag laa. <laughs> damay jéem a teg xel li man doomu mag laa. Mm-hmm. di ko wax ni ko loolu laa wax de lenn. Mm-hmm. mooy gis naa état bi fils ci moom. baax na trop. mais mais incha allah incha allah. caa damay jéem a dóor rek. sànq nee na la Lamine bu la toogalee seet mu daal. ma ne ko. waaw allah. muy taw di sawet di xiin di naaj Lamine moom may toogal seize te incha allah dama koy daan le douze nee naa le douze moom fenn rek laa xam ne man suñ fa bëree duma ko daan muy ci kaw ci kaw armeer yi xamal tax damay ruus ñi fa tëdd mais bu ñu duggee si biir bàmmeel sax mu daan ko incha allah. waaw ah, man àgg ci loolu loolu amul lenn lu ma ciy tontu dañ bàyyi ba àgg ci loolu rek waaw. Thiatou Seye boo demee Galathie ay grand ay grand jaar nañ fi. kan ak kan. ñii maa ñoom ñaata ñaar ñaata sax. 4-0 la xaw ma 5-0. da nga bëri Youssou Ndour dóor mi daan ko. Maguette Seck. xuux mu daw ma jàpp daan sama gaay na maa ngay koy duy au passage fii Maguette Seck maa ngi lay ziar lu bëri. Oudou Taye daan naa ko yaakaar naa ñaata. bii. en tout cas am na lu ma doon wax. 4-0 te yëpp équipe de. am na am na li ma doon wax amaana. gaa yi dégguñu ma moom mi déggu ma. muy. mooy làmb ji incha allah. Hmm. caaw ji koy daan moom. Hmm. Belgique lay jógee. lo loolu loolu yëpp da nga. les deux. nga li jógee Belgique. loolu lu fi jaaroon jàll la. yow la passé la passé. yow li nga wax lu fi jaaroon ah. moom li mu ni li fi jaaroon ñëpp. respecté sa turandoo. non non non moom légende la. non mbaru démb la. légende la du mbaru démb sama tonton du mbaru démb. légende la ñoo xam ne dëgg mbaru démb la. non non nekkoon na si laawañ dañoo woo bàyyi kay. mbaru démb la légende la légende la fii bëre ba léegi mooy lutteur en activité. da nga naan kooku légende la mooy lutteur en activité mais ku bàyyi kay. mbaru démb la non da nga naan kooku légende la mais bul taxaw fii naan ay mbaru démb. Eh, jox ko cër sama tonton mbaru démb la les deux mbaru démb la. non man les légende la ci man. nga ni waaw si yow. man légende laa ko jàppee. waaw tuur ji waaw man loolu laa jàppee mënu ma taxoon naan waaw lépp mën a nekk mais en tout cas daal ca ca ñoo ay mbaru démb la ñoom ñaar seen combat seen combat la mu ne seen combat seen combat la c'est Seliir Thiam yu ngay tijji Belgique lay jógee. Hmm. waaw coono mais dama sori rek de météo vol bi tardé de ak nga koy dégg mu lay naxari yëpp. Oh, <laughs> le douze si guddi. ngay hmm. comprendre. waaw incha allah mais mais hmm. nii. te dama koy ñaan leen. incha allah su ma ko daanee ba pare bu mu bàyyi bëri. ne bàyyi kay ëpp naa def. non dama ko koy ñaan su ma ko daanee ba pare bu mu bàyyi bëri. <laughs> Thiat yaa nekk yaa xaal pour daal ma ni yow Thiat ba lay peese boobu lay siboo yow après ngay comprendre après bu laa mu jàllee gàmmu waalo la ñëw na ba pare de. gàmmu waalo kañ la yow jaatu. yow xamal li muy waxatee nii. gàmmu waalo amul xam la moo am. gàmmu waalo laaj ma lan moo am. waaw dafa am ay dëkk dëkk bu ne gàmmu waalo am sëñ bi <laughs> nga ma gàmmu waalo amul da ngay bu lamb jàllee nga ñëw ma egg la gàmmu bokkal ñu dem gàmmu a yow waaw kii da nga naan kañ la ak bokkal nga mën a génne si waalo mais bu ñu nee waalo bokkal waale waale gënal gënal gënal bokk ci waalo gaaya am na gàmm dëgg la gaaya am na bokkal am na gàmm risaata am na foo mën di dem ci waalo am na gàmm waaw léegi loolu am dëgg la expliqué gàmm bi nga xamante ne xanaa déggoo la amul xanaa déggoo ma la ñun dëgg maam faade wala lañ meññee ko ñëw fawaadu wax lan laa wax yaa xam léegi ñooñu ñëpp na ñooñu te wax ci làmb ji yéen ñaar seen diggante mhm. ndax xeex bu métti mën naa am seen a bi jaar en tout cas len dinaa ko wax man pare naa pour bëre kese pare naa pour xeex kese pare naa pour bëre xeex pare naa pour xeex ak bëre pare naa lépp ci gàttal maanaam moom mi combat bi bi bi bii ma war a moom man dama ci pare lépp te incha allah dina ko daan. waaw lu naa ko maa ngi koy xaar. raag bi yéen ce que kenn kenn est kenn du songu. wallaahi lu mu pare pare naa ko maa ngi gën a ñeme dee foofu barki alxuraan balaa moo na xam. làmb ji mu nekk ñu taxaw ku ne suul si tànk leen jox la jaasi ñu xool boobaa lay xam ne maa gën a ñeme dee barki alxuraan karim ku ne ñu suul sa tànk taxaw jox kii jaasi jox kii jaasi mu tee boobaa lay xam ne kii parewul pour dee kii lu mu pare pare naa ko. kii bu ne dagañ ci sa tànk yi da tànkal yow man mi lay naaw bu boobaa bu boobaa moom fa lay jaaree bàyyi song ba faaw. bu la song mu dalee tànkam lay naaw. ba boobu. incha allah la nga koy testé. kii ci Arfora gën a dëgër bopp. Youssou gën a dëgër bopp Sa Thiès moo gën a dëgër Boy Lo moo gën a dëgër bopp. kii bu dee kii xoolal suñu ligiri kii suñu ligiri ay mille la Lamsar am fa 500 pour moom. non loolu loolu loolu am naa fa 500 pour sa bopp boobu man barki alxuraan dama seenaan interview. loolu maa ko moom du ma ko sa man su ma ma seenaan làmb wala aw ma xarit bi bëri barki alxuraan du ma seenaan làmb. yow nga ne ñun ñu bëree ñun ñu bëree. ñun ñu bëree kii am naa 500 pour moom Lamsar am naa 500 pour moom Caaroy Géej ñun ñu bëre dañuy boo ko muy mille ñu bañ bëre dañuy seetaan yaa koy xalaat waaye moom xalaatu loolu ñun ñu bëre tànk mu ñibbi ñu bëre dañuy seetaan lamb ñu bañ bëre dañuy seetaan lamb ay mbër lañ ay doom mbër lañ rakki mbër lañ ñaar defal lamb benn non caat ñaar defar la ñaar defar la am ñaar. boole ci bii muy trois. da ngay tëdd de caat fay du yow yaa may lu leer laa la ngay tëdd. lu leer tëdd. li nga xalaat amul de. waaw ah, baax na. que <laughs> li nga xalaat amul de. lu laa la ma xalaat moo yow li nga xalaat moo amul. en tout cas nga ma na jàpp mel pile ma mel ko yor sa benn xale bu ndaw noonu la wax yaa ngi boo demee nga laajte waat bu baax nga ngay bëral boo demee nga laajte waat bu baax caat bi bokkul dégg nga yokk ci lépp doole lépp xam-xam màgg naa ci lépp te incha allah lu dus bu ma nee su ma sumee ba jëf leen kii ba pare xam ne caat màgg na bu baax a baax ok loolu am na solo ku ci nekk ci yéen ñaar dinañ déplacé wu ñëw fekk sa écurie waxtaanaat ak yow te yàggul dara incha allahu rabi Baye Ndiaye mu ngi waajal benn face a face ñun ñëpp ngeen si xaar ko Eumeu seen ak Tapha Tine ak mbër yi war a bëre ci bés boobu yëpp ñu ngi jox ñëpp rendez-vous le 12 novembre ma bàyyi ñaari mbëri nag ku ci nekk woo say mbokk ak ñi lay jàppale ci combat bi caar ay bismillah waaw man damay woo damay woo képp dëkk caare géej mais ne wax ne man doomu caare laa man doomu caare laa man ndam yóbbu ma ko fenn furul caare kon nañ ñëw jàppale ma man seen doom laa man seen doom laa na ñëw jàppale ma man caare laay da laay laay drapeau caare laay dawal. ak fu man dem caare laay représenté kon ni kon nañ ma ñëw jàppale ko waa man seen doom laa man ñaanuma leen dara man laa ñaan ay biir yëpp booy échar kese ñaanuma leen dara man du ma taxaw di ñaan doomu aadama yaa ngi dégg may sant sumay xarit bu baax surtout waa récupéré booy yow ma seen fay ak waa mbaar mi waa raxu dof ruxu cëm caare géej bi yëpp récupéré dal jàmm baay ma ken maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo quatorze géej yëpp di woo sumay goro su may góor ma leen woo ci làmb ji bu baax. bàyyi ma kenn <laughs> su ma soxna. ñi ngay woo kenn du ñëw baax mention spéciale. kenn du yow làmb ji man moom jote sax nañ ko si. barki alxuraani karim. billaay walaay talaay làmb ji man moom dañ see jote jote jote jote si. non non si cadre da ngay bëre. mooy nga du ma bëre. kon làmb moom làmbam la ko waa barki alxuraani karim. maa lay sant bu baax di la gërëm di sand su may rakk su may mag ñi ma bokkal ci wàllu papa ñi ma bokkal ci wàllu yaay. ñëpp képp kuy sama mbokk sama sama nijaay dëkk Cambérène sama waa kër yaay waa Cambérène yi sama nijaay yeeg sama tante yeeg sama rakk yaay yeeg ñëpp ak yoof bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp sant géej waaye am naa fay mbokk waaw am benn père bu baax di ko nuyu au passage père Diaw sant di la gërëm bu baax maa ngi waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu terki yi may jël nuyoo bi di ko wax di la DG DG dama ma jël fan ma ci appartement la ma la ma jëlal wëcc barki alxuraan lu leeraay appartement la ma jëlal fan ma fa yaa ngi dégg ah ma ñu bur bi grand ma ñu bur bi yaa ngi dégg voilà DG wëcc dama lay wax la jël lal ma fa dara manqué wul lépp pour moom la pour man quoi di def ngir man ma xew lamb yi moom laa koy bëreel maa ngi woo di woo terkindaay di woo jàmbaar yëpp bàyyiwuma kenn waa Zac Mbao gi ma dëkk maa ngi woo ñëpp ci làmb yi nañ ñëw waaw ñu sant ñëpp di gërëm di nuyu sama adversaire baa di ko ñaanal jàmm wér ak wérle waaw boo demee nag gale ah non dañ bàyyi monsieur da cóori jëp wooteel wooteel waaw avant mooy woot damay nuyu suñu waa gale bu baax a baax a baax parce que yendalatuñ fanaanatuñ xam di woo Kandji production di ko woo bu baax a baax di ko wax di ko wax mu jënal may bee. borom ETDR. borom waaw Kanji. Kanji <laughs> xaarimanta xaarimanta xaarimanta Kanji na jàppale ñaari ñi. ginnaaw yàlla su ma demee promoteur yi ma gis di ma tëgg ginnaaw yàlla Kanji la. xaarimanta ma génne maanaam moo ko tëgg. waaw di ko ñu koy woo si laamu sama combat yi na si mais bii laamu yoon yow jël lépp teg ko si loxoom. waaw damay woo Kanji bu baax a baax mu jàpp si combat bi. xam nga di woo Jamil borom Nuuru laa xam nga. borom Moringa. borom Moringa bi. Moringa wala <laughs> Moringa. borom Moringa maa ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax a baax. di woo Thierno borom États-Unis maa ngi koy woo bu baax a baax a baax moom xaarul làmb pour jàppale ma. di woo di woo Aliou Lo borom centre cappaancool bi nee na làmb ji am na woote mais amul xaar waaw moo tax xaar ñu kenn ñu bu baax a baax. di woo mafia Pàcc Baye Moussa bi xam nga waaw mafia Sam maa leen di woo bu baax a baax a baax waaw feene uh, marché Ndiarème beeg yëpp Paul maa ngay goo bu baax a baax a baax di ko woo ci combat bu baax a baax a baax a baax di wax Baye Ndiaye nañ jàppale ñun ñun ay doom doomu géejawaay lañ nañ njaabale bu baax a baax a baax si laamu ji njaga borom laadu mi njaga Balla Gaye du dégg nga li waa ji ah? waaw baax waaw baax na ñun di woo waa Guédiawaye bu di woo bul bul boor nag mhm. kii sa fils la man sa fils la non yow rakam nga man doomam la waaw la demee a na jënd tiga jox la jënd tiga jox ñu na dina ko def waaw ñu <laughs> dina ko def non dina ko def xam naa ne moom non dina dina faral rakam sax doomam waaye waaye man danaa jàppale moom moo woo wax man ci lamb làmb ji maa ngi lay talal loxo nga ñëw jàpp si comme ni nga jàppalee caat ma noonu. Hmm? man am naa yàlla mi am naa rër rek sama waaw mais damaa bëgg yow nga yow jàpp si ji yow ñi ngay yor de doo waaw mais damaa bëgg ñëw jàpp si làmb ji da ciy jàpp man di woo waa Guédiawaye yëpp dañu wax man couleur Guédiawaye laay représenté muy zone bleue bi fu ma nekk rek man moom laay représenté xam nga di si woo waa Guédiawaye ñëpp ñëpp ñu ñëw jàpp si Serigne Massamba Ndour maa lay tàllal loxo bu baax booboo amar pal Wuri Samba Ndour ñoom ñëpp maa leen di woo bu baax a baax a baax a baax ci combat bi. ah liiru defal nànk rek kooku damay wax si moom de sama temps laa jël ci moom. mook Balla Gaye moo tax ma yéex di woo sama papa sama lépp muy Balla Gaye numéro 2 Omar Sakho woo bu baax a baax ci combat bi jëla nga xam ko ak nga ñàkk xam yëpp sa combat suñ papa liiru aw ma sa fay ma duma la woo dama lay dama lay ñaanal di la ñaanal bu baax a baax lépp li nga bëgg yàlla nga borom defal ci barke Seydina Mohamed xam nga <laughs> sa a ngi yére sa fils la mu jaay noonu père Khadim Ndiaye góor su raadu bu ko fàttali léeru ak suñ per suñ lépp ah nee na man maay man maay caatam. Ah, muy Pape Mama numéro 2. Ah. Pape Mama. buuse kay bu ma leen jëlee live Instagram yéen ñaar ñëpp leen jëlee ay borom. di wax ko wax ni ko sa doom am na combat capital. Pape Mama Fall. yaa ngi ko mosoo mosoo ma teg loxo mais dama la wax nga gën ma teg loxo. ma jàpp waa yi daan ko. Boucher am na lu ñu waxante woon incha allah combat bi ñëw na teg ci loxo ma jàpp waa ji defeere ko di nuyu famille Fall borom famille Fall yi nekk Belgique yëpp maa leen nuyu ñëpp ñëpp am seen fay waaw di la wax ni la ku ah. may wax. jaajëf combat bi combat jaajëf léegi danaa ñëw si écurie bu ko defee sama DG Iba Thiam Iba Thiam maa ngi lay woo di woo ñas bu orisi sëñ Moussa incha allah yéen ñëpp Fanja yàdd jërëjëf xa job sama jigéen dinañ la seet si dinaa la seet si bu soobee yàlla dinaa la seet si jërëjëf Pape kontaan naa ci yow di kontaan ci coach Lamine Diaw di leen jox rendez